dafa kaawoo. may. dee leen ci Sese mbokki internet yi ñuy seetaan si la seen merveille TV ñoo ngi leen di nuyu ah di nuyu képp ko nga xamante ne rek kuy dund la ci biir dëkk bi. di seet ñi nga xamante ni ñoo nekk ci lali hôpital yi te tawat téye leen fa ñu ñaan yàlla suñu borom mu fëgg seen bopp ba ñu jóg ñi nga xamante ni yoon da leen a ñu nekk ci prison yi mooy maison d'arrêt et de correction yi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu teggi leen natt yi ban delluwaat seenu njaboot ah tey nag ah, ñi ngi doxaat ci doxinu làmb rek comme ni ñu ko daan defee bis bu ne ku ne xam ne tey su ngeen gisee image yi ku ci mel ni Safi Dieng nekk ci sama droit ngeen seet ñi nga xamante ni ñoo nekk sama càmmoñ ku ci mel ni Ndoye Diouf ñii ñooy euh, président wu fans club bu Matar mbay ambulance Safi Dieng nag mooy président wu les lutteurs en activité yi nga xamante ne ñoo nekk fii Thiès ah ñu jublu nak ci bis bu reuy commencé won ko dembu ah moy di taxawu suñu rak seen xarit muy Matar may ambulance bis bu mag bi nga xam ci la jëm ah ñom ñep ñu xam nak ah ku ne xamne mbeurum lamb bu tolo fi mu dess ay 48 heures avant combat am wala 72 heures dina am yo nga xamanteni mi soxla wo la rawati na mu jublu ci open press bo xamni tay ji lako wara def motax safi jog and ak ay rakam depuis démb ba tay dugg ci dekk bi a ah, commencé ko démb ah, taxi kaw ah, japp rond point ngent ba marché central di ko ketal lo nga xamanteni lu muy jappandiko la pour wan nit ñepp ni matar matarum ties la ñepp dañ ci wara japp jàpp nak nag commencé affaire bi wax deug yalla dugg marché central ah ba jéxalé fa tay nak ñu fas yéene ñëw fii nga xamanteni moy mooy marché Moussante suñu fi joggé daal marché Grand ties dem garage jàpp xel koom ah pour wan ñi nga xamante ne ñëw dëkk ci dëkk bi cee safoo làmb ñu xam ne Matar mbay ambulance Matar mbayum Thiès la ah mbayum Mbaye ah, dëkk bi la ah jàppale ko dafa war moo tax ñu jóg pour fekk nit ñi fi ñu ne comme bu nu toogee di leen woo du ñu ñëw ñun ñu jox fekk leen fa nu ne ah tàllal leen suñu loxo ah bu ko defee ngir jàppale ko kon damay jox président wu ah, bi nga xamante ni mooy jiite les lutteurs en activité muy saafi mu rafetlu ay kàddu ñu dugg ci liggéey bi. waa bi salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum Baye ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu waa Kees. Hmm. di leen siyaar di kontaan vraiment tamit euh, ci bu combat bi taxee ba léegi gis nañ gars yi ñu ciy jàppee. Hmm. tey nag nekkoon su deuxième tour bi nga xam ne euh, tombé aussi tamit ak open press ambulance. Hmm. ñuy woo ci combat bi. wax yàlla ndax kat gargan boo seet daf ñoo sas. danoo xas saaga ni danoo sas sas gi mooy. dañu mataan amooy mbokk te ñëpp xam na ne Kees ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. boo laalee kii daal nga kële. dëgg la waaye ñoo xam ne Kees waa yëpp jub. xeebuñu ñaan xeebuñu dara waaw ndaal yàlla mi am kartan moom la ñuy ñaan yàlla ñu yàlla may ndam te it yéen it tamit ñu yaakaar ci ngeen ñaan ñu yàlla suñu borom yàlla may nag kenn xamul gémmiñ ba am barke tey ah, marché bi wala ñaan dimbal ndax képp xam nañ ne war a dem Dakar war faa yóbbu 15 car hmm. ah, yóbbu fa ay nit ñu war a lekk war a naan loolu ay moyens moo koy def ñu bëgg ñëpp jàpp ki rek loolaa ma daal lañ ci nuyee pour le moment. mais saa nga nekk ci bunt boo xam ni nag tey jii. Hmm. suñu directeur bi nga xamante ne bi gën a mag ci Sénégal muy DG AIBD fii la dëkk. Hmm. daanaka soriwuñu këram. Hmm. muy Ablaye Dieye. dëgg la. waaw loolu moom dëgg la man maire national naan naan tegi sax bu amoon oto bu disponible léegi léegi nii sax hmm. aéroport lañuy jubali li ko nag ñu ngi nii dëgg la waaw bu amoon oto bu disponible léegi léegi jëm jubali ci AIBD ko ni ko ne président ñu ngi nii du seetaan xale bi de mais il faut mu jàpp ci ak nu mu ci hmm. rek mook ay moromam yëpp ñëpp bawuñu kenn jërëjëf kon ñu dugg ci liggéey bi sant ah ci dox bi nga xam ni moom lañuy ñuy doxal Matar Mbaye ambulance ci bis bi nga xam ni ci la jëm ñu fekk fi ku mel ni a Dieng di ab euh, reporter bu mag a mag ah, wala muy euh, communicateur wala bu ko neexee muy amateuru làmb <laughs> ah ñu bëgg a waxtaan ak moom ci seen rakk ji nga xam ne moo war a waree Thiès jëm Ndakaaru a ah, muy bis bu rëy nan ngeen ci xalaat ak nan ngeen di waajal di ko waajal bu baax a baax rek Pape moom sunu rakk la yow sunu xarit nga li ñu bëgg daal mooy yàlla defal ko jàmm rek ak wér bu demee bëre daan rek ñibbi si loolu lañ ko ñaanal. mais mu mel ni adversaire bi ngeen di bëree nawloowu leen ci kàddu. waaw daa xamul dañoo xamul rek. Pam moom ku ko xamul rek yaa ko dul nawloo. waaye ku ko xam waaw Pam xamul rek yaa ko yaa koy bañ a nawloo. Mm-hmm. waaye ñii nga xam ne xam ngeen ko ñun Thiès xam nañ ko xam nañ li man mën ak li mu mënul. yàlla moom yàlla dina ko may ndam bu yàlla yonent bi. Ah. waaw waaw loolu laay ñaan. nan ngeen bu ngeen ko doon yeb loo ngeen koy yebaale. ndànk rek def ndànk kom dana def jàpp rek wañ daan moom loolu lim lim ma ne daal def. Ah. bu kat bëree bul def loo mënul li nga rek ko def li nga di waaj bis bu rëy moo tax ñëpp jóg saa ak ay rakam mu mel ni li bëriwul lu ngeen koy gis la saafe ngi ni bëre ba bàyyi dëgg la jël ay rakam encadré leen dëgg la formé fi 100 pour cent Thiès dëgg la tey jii mu jóg ànd doon ñëpp di ketal rakam dëgg la taxawaay boobu noo ko gisee lii mooy taxawaay bu rafet hmm. lii mooy taxawaay boo xam ne mooy jëmale Thiès kanam ndax ñun ñëpp dañoo war a bokk ndey bokk baay hmm. ndax Thiès rëyul dëgg la te ku fi doon champion champion réew dëkk bi yëpp nga dëgg la ñëpp ngay siggil ndax drapeau Thiès ngay tàllal bu boobaa dëgg la kon yéen bu fekkee da ngeen a magal xale yi waaw nek ci sen kanam sa bu xalé juugé da ngeen wara juug def ci lu ngeen man ak lu ngeen manut li nak na ngeen fexé ba na continuer ta jëm kanam ndax képp ku fi nek champion ñu di la ndamo tay Thiès képp mo lay ndamo ta ambulance xalé bu yaru la xalé bu gor gor la xalé bu bëgg lu muy def la lenn rek la koy xamal uh-huh. ki muy bëreel mom ñun ñepp xam nañ uh-huh. nawlo wu ko gëmul ni sax ambulance mën daan te ku jël sa avance war na laa mën a daan ta ambulance dul di nelaw dafa moom mu ànd ak i bokkam comme nag moom moo aaki moo lépp jël lépp na ko bàyyee lépp te def fulla ak fayda ak jom ak ngor yàlla dina ko may ndam te ñun ñoo ngi koy ñaanal ci kàttanu yàlla ak yonent bi yàlla mi yore ndam yàlla na ko may ndam lu sedd guyu ci kaw Garga 2 ci barke Serigne Touba mi ngi noonu ñooñu ay supporters lañu yu dëggu sax waaw mu am fulla am fayda am jom te xam na ni li muy def bëgg na ko mais yàlla moo ñëwagul ay moroomam la nekkal fii kees mais li muy def man na ko na teey am fulla am fayda te xam ne ay moroomam dañ fiy jóge di indi ndam man loolu rek laa koy digal na am fulla am fayda te xam la muy jëli mooy lan parce que waa kees gépp mobilisé wu nañu ànd ak moom kon boog na def fulla def fayda def jom yàlla na ko yàlla dolli jàmm si barke Seydina Mohamed li muy yootu yàlla na ko suñu borom defal si barke Seydina Mohamed merci beaucoup am moo ko bind jaama saa waay xam na kele bi moo def dam ko doon xool dama ko xool dama ko doon wéyale waaw kele bi nu mu tudd ah kele bi nga doon def nu ko dëpp sol uh-huh. bu ko fële bu ko fàqat waaw ak loxo bi dama koy fii mu def mu mën nga koo digal sa rakk ji war a waree Thiès jëm muy ambulance bu Thiès ambulance de man bëgg dem laa xam ne am na combat uh-huh. waaw mais waaye xam nga ko am na xam naa ko kay uh-huh. am na combat ba ah si am na combat loolu tax ñu dikk la xam la ma tax ma ne am na combat waaw Garga dafa taata ci làmb dafa mhm. dafa nekk mbër mu bëri doole mu bu mën a bëri nag mhm. ambulance na daal rek mhm. na ko bàyyi na ko bàyyi làmb ji soo ko yóbbu woon loo koy bëriloo contre kele laa koy bëriloo maanaam bàyyi Garga def moom mu xaar waaw bu mu xoolal waaw bu ci jël benn benn benn initiative bu ci amee niw sax ndam la ci moom yow loolu nga gis waaw jërëjëf kàddu rafet na paaj muy Matar Mbaye ambulance mu nar a jóge Thiès jëm Dakar soo amoon kàddu yoo koy yabee lan lay doon xanaa mu góor rek xam na fu bàyyi te nekk na champion yoo xam war na mën a téye Thiès hmm. su gëmee boppam waaw kenn mënu ko fi Thiès lu mu seet na mun a góorgóor rek ba àggee Dakar daal yàlla defal jàmm daal yàlla may ñu ndam sedd guy nag da bëgg naa daal mu gëm boom daal ndax xaal mu bëgg la mayit hmm. waaw bëgg naa ko lool non wane nga ko bëgg naa ko lool parce que li def nii hmm. wane nga ni ku ko bëgg nga ngoon open press ba suñ sañoon it ngeen teew fa mais mi ngi ci place publique bi nekk ngéwal foofu lañ koy def d'accord incha allah naa teew 17 heures rek incha allah jërëjëf macha allah xale bu nangul liggéey yërëmi rakam fii Thiès képp ku fi defar ay moto lool ca Pape Kébé magam la commencé ay waaw Mori mon ami Mori moom tey union sportive de ba barke ba tey mu dem yàqul place bi bàyyi Malick macha allah loo jaayut baaxut bu la neexoon nekk fi di jaay matériel chinois mbaa ngay jaay matériel portugais eh, eh xoolal laal duñu ay mille francs la xoolal eh, xaar daa waaw ambulance moom wax dëgg yàlla sunu mbër la te eh, champion la taax kaw la dëkk ñu dëkk Medina Fall te diggante taax kaw ak Medina Fall ku ne xam na ni benn la waaw di ko ñaanal yàlla may ko ndam ndam lu sedd guyu ci ki muy waaw vraiment ñu ngi koy ñaanal ndam moom ndam rek lañ ko yéene te yàlla na ko am waaw champion la internet yi ñuy seetaan à travers Merveille TV tey jii ñoo ngi fii ci marché Moussante ñu fekk fi nag ndaanaan loo xam ni ci làmb ah bu leen xool yàpp yi muy jaay a ah ba tax su waxee du leen ko déglu ah nit la koo xamante ni amul lu mu lay wax ci làmb loo xamante ni ah boo demee boo demee boo ko xoolee doo ko fa fekk alaaji ah, tey dañ ñëw ah ngir ah, suñu bisu rakk joo xamante ni mooy Matar Mbaye ambulance nekk fii ci Thiès war a jëm Dakar war a jàkkaarloo ak champion boobu ñuy wax Garga numéro 2 waaw ah, muy bis bu mag boo xamante ni Cees waa yëpp a ngi koy waaj daanoo ni mel ni yéen nag ñàkkul seen xam-xam buñ ci soxla ñàkkul lu ngeen ko mën a yabee moo tax tey ñu ñëw dékkal suñu micro ngir waxtaan ak yow ci wàccaayu xale bi ak nan ngeen ko gisee ak nan ngeen yaakaar ni moom la xale bi war a waaje ak nu mu war a demee Ndakaaru ginnaaw bi nu nuyoo Cees gépp mhm. ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaam di ñaan Thiès Média gii ngeen nekk. Merveille TV. Merveille TV bii ngeen nekk sunu borom yokk ko. Hmm. mu kawe lool ba àgg fu kawe seen jor hmm. ginnaaw loolu nag dafa am ñu fi nekkoon. Hmm. Matar Mbay ak mboolem xale bu ñu yor. ci loxol Omar Dikko lan toqi ko te yàlla dogal mu jiitu. kon yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. di nuyu Sidi Jaxate sunu frère. di ñaanal Néné Diarra mi nga xamante ni kóllëre woon te nan ci lu ne. ndax man ak moom defe naa ni ñoo donte làmb fii ba keneen mën ci jot. yàlla dogal ñu jaare ko foo xamante ni tey ku ñëw mën ngaa dem parce que bunt bi dafa leer te ñu doon wone dafa leer nañ te amoon nañ ci yéene bu rafet ñu koy ñaanal yàlla mi nga xam ni moo ko yóbbu mu xare ko àjjana Matar Mbaye ambulance nag jot dafa bëriwul waaye kon dinañ ko wax lu bari lu mu mën a bàyyi xel waaye comme bëriwul dañuy tënk rek mu jàpp ci loolu na xam ni nawleem lay fekki te ndam moo ko arrangé. Hmm. ndax xale yi danoo toll foo xamante ni làmb dafa gàtt. te calculé wuñ ko. te ndam doo mën a yéegal nit ci kaw niveau boo xamante ni dina ko jariñ hmm. ki bàyyi métier nekk ak ay nawleem fas ne ni dafa bëgg dara fayda doo nga ko ci mën a may dara hmm. làmb jooju nag lamb la joo xam ne na xam ni bagarreur lay taseel hmm. xale la boo xamante ni lu mu taseel dafa ne ni moo la mën kon Matar may ambulance su bëggee dara dina am lu mu ko jaral soo ko yóbbu noo koy jafe nu muy bëree mu toog ci tànkam te bëgg dara bu mu mayee dara tal ñu ko may mu jël est-ce que xaar Garga 2 di diriger làmb ci kawam. du làmb du du lu ñuy diriger mbër dañ koy freiner. Mhm. boo toogee say tànk jege ko kenn mënu laa dàq nga daw. Mhm. te lu waay yëngal xam nga ko. te jamono boobu nga bëggee loolu lu lu sotti foofu nga am ndam ndax yow yaa ko bëgg. Mhm. waa nit li bëgg amal na ko fekk kon loolu nga koy bëree loolu. loolu koy bëree loolu taxaw déglu ko. déglu ko. ba xam lu mu indi. lu mu indi su garga ñëwul. garga du mën a ñëwee noonu. gaynde balaa songu nit gis ay tànkam. gaynde hmm. bu dàqee nit dafa départ bu ko dàqee mu taxaw rek mu jéemi pexe hmm. yaa ngi dégg gaynde dawul dafa wuti doole bis bu na nga dégg ko. te seen làmb ñoom ñaar eh, ñëpp ñu ay bagarreur de. si garga am na lu mu sàcc tuuti ci xeex. mais doole du dëgg. da koy nappee rek. da koy nappee doon sax quoi. non non non bëri bëri seen bëri kon jeex na. Matar Mbay ambulance mbëru mbappat la. am na lu mu bëgg. nee naa ko na def maninam ku bàyyi sa manin boo juum. képp ku bàyyi sa manin juum. su nee rënkum daje. su nee daje moo ëpp sens ndax dafa gàtt te moo ëpp cër yu dëgër. dafa doole day ñor <laughs> ta la ne ci mom man gëm naa ko sama gisee ak nak bari wul ci télé rek la koy mm-hmm. seen mais xamna limu liggéey deug la mais japp bu sax buñ ko défé mom bu wuré am dara waxi borom xam-xam la ah ñu tek suñu baram fofu te yoni yag te ñaan yalla suñu borom mu may ñu ndam kon ñu do dugg ci marché bi su amone euh, kàddu yu mujj yoy wax rek à travers Safi Dieng nga xamni moy magu xalé yi tay nga gis ko mu yëkëti li nga xamni moy 100 pour cent di leen dolel àndandoo ak xale yi ay rakam fu ñu jóg bo tourné gis ko ci seen ginaaw bu amone koy Safi lan lay doon. li li xalé di jànge ci mom moy ngor. Safi gore na Safi xam ay xam na ay magam xam ay rakkam saafi maa ko yar ci sama kër ba muy ñëw sama kër xale bi ko ëpp Omar di ko lay àndal euh, nu mu tuddati euh, seen waa ji borom Diallo sëñ Modou Thioune yaa ngi dégg ñoom ñoo ma daan yendu sil daan ànd ak Matar Gueye Seex Ñang ak Ngañ bu nu ñëwee nekkandoog man ma xam lu bari ci moom loolu ma xamoon ci moom ba tey soppeeku te ba ma koy xam munul jàpp dara ñii bi ma leen yi bëriloo ay booy yu tuuti leen waaw maa leen njëkk a bëriloo catégorie bi fi génn yëpp ci sama loxo lañ bëri ñoom ñëpp maa leen tëgg dëgg la mais nag nan ko ñaanal yàlla guddal fanam en tout cas mi ngi te yoonamit yàlla bu ci gàllankoor am non lii moo ko jik mhm. saaf bu defoon leneen lu dul lii dégg leneen ndax euh, nit booy séq ak moom ngor gu nekk ci yow ne ci moom te ragalul mhm. loo xam ne bu ko tuddee ku ko xool dina xam ni lii mu wax dëgg na nit ku goré la xalé bu am cër la te ku bëgg a am dara di ngi ko déglu ndax amna lu mu xam ta iñaanu ci jërëjëf kon kàddu yi rafet na mi ngi nonu ah, ah, ndaysan defena naa ne déglo wax ji rek nga xam ne kii li wax nekkul lu muy tatone mais également nekkul lo xamante lu muy for la donc duñ def lu diko di ñaanal momit li nga xam ne moom lay yëngu yalla ci sama borom wasal barke ba lepp lu mu ci bëgg mu mën ko ci am kon mi ngi noonu kaawoo. kaawoo. dafa kaawoo. dafa kaawoo. man tey ci sa sa woo. dafa kaawoo. man tey ci sa sa woo. dafa kaawoo may. tey leen ci sa sa woo.